atu 2021 bi mu ngi tàggoo yal na yóbbaale suñu nakkaar te bàyyi fi bànneex atu 2022 bi ñuy dugg yal na nekk ati naataange yal na nekk at bi gën ci ñun yàlla na nekk suñu sangat lépp lu waaye di ñaan mu nekk ci xolam yal na ko ko yàlla may mu nekk lu gën ci moom yal nañu yàlla doolu sutura may ñu luñ teralee suñu waajur di ñaanal pépp doomu aadama gudd fan gu ànd xewal suturu àddina ak yàlla may ñu xolu muñ may ñu kàttanu muñ yàlla musal ñu ci feebar musal ñu ci lépp ci barke alxuraanu karim may ñaanal ñëpp fu waaye nekk ci kër àddina yàlla na la yàlla dolli sutura li sa xol yaa ko xam yàlla na la ko yàlla may ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam